ñun dañu jàpp d'abord principe bi tax ñu organiser atelier bi mooy que d'abord Sénégal dañu war a xam ne débat bi warul nekk rek débat politique débat bi warul nekk rek débat wu fichier électoral euh, débat bi Sénégal war na mun a intéresser yeneen xeetu débat yoo xam ne dafay soxal suñu dundin te li ñuy wax budget moo gën a am solo suñu dundin parce que ci budget la def luñ ñu jagleel lu ñu jagleel ci lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram lu jëm ci wàllum éducation lu jëm ci wàllum lekkax naan moo tax budget di ko waxtaanee dafa am solo ndax dinañu mën a tax as euh, population ki gouvernement di xam lan la askan wi gën a yittewoo donc waxtaan ci waxtaanu budget dafa am solo waruñu ko négliger au profit de waxtaanu élection waxtaanu politique looloo waral tey jii ñu ànd ak IBP organiser lu mel nii atelier bii tey ñëpp gis nañ ne bi ñuy génnee rapport auditu fichier électoral coow li mu am maintenant bu ñu génnee itam rapport commité force Covid 19 war nañu mën a ko càmbar xool ñoom ñi nga xam te ñun ñoo leen woolu parce que ñi ci nekk ñi nekk société civile ñoo fa tànn yóbbu fay nit ñi nekk ci euh, opposition tànn fa yóbbu fa ay nit ainsi de suite kon ñooñu bu ñu génnee rapport te ñooñu ñu ñun ñekk ñu ñu doy. dañu war a xool rapport boobu lan la ñuy joxe comme ay tettal maanaam lu ci baax ñu continuer ko jëfe lu ci am ay rëq-rëq ñu corriger ko waruñu ragal Sénégal muy am li ñuy wax reddition des comptes maanaam càmbar ndax càmbar objectif am bi jiitu du pour euh, daan ay nit wala yooyu mais càmbar objectif bi jiitu si moom mooy prévenir d'abord mu am ay njuut njaaj mais objectif bi ci topp mooy fexe ba bu amee ci yorin ay rëq-rëq ñu mën ko jubbanti ci euh, at yi di ñëw te loolu mooy li am solo te loolu moom li nga xam ne moo moo waral suñu daje bi tey nañu xool rapport bi li ci am euh, njariñ ñu jëfee ko li ci am ay rëq-rëq ñu xool nan la ñuy ñun société civile doxe ba lépp lu ciy rëq-rëq ñu yëm ko corriger